salaamaaleykum mbooloo mi fi teew maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah xam naa nag toogaay bi yàgg na euh, mu ngi guddi it mais dañuy tënk rek euh, dama jël euh, nuyoo bi si côté CNG jox ko tey Maysa Ndiaye mu seddaleel ma ko ma jël. turu mbër yi nuyoo mbër yi te ko si loxo sunu mag jële bi Saala Senghor wala Jibi Malaw ñu tasaare ko si mbër yi euh, euh, jël nuyoo promoteur yi te ko si loxo Moussa Loos ma nag moom li ñu seex mais ma jël nuyoo promoteur te ko si loxoom di sargal bu baax sunu nijaay Serif Diaw ndax jotaay buñ ko fekk dañ ko war a sargal mooy suñu kilifa di sunu nijaay ah, di nuyu aussi euh, Seexu waaw Seexu sama dëkkandoo la sama xarit la ñoo yarandoo kon maa la nuyu bu baax di nuyu Ablaye Pouy bu baax a baax a baax moom it vraiment sama xarit la ñu seq yu bari di nuyu Xasaa Caam si décoration bi de mang ci si bu baax c'est pas la première fois mu def ko nag wa def na ko lu bari bari wa du tay da ko njëkk def da ko def lu bari té nit nak su féké ni heure bu événement amé mu décorer la sargal la lolu sak la mang la si remercier bu baax baax di nuyu presse bi nga xam ne ñoo fi téw mang ci seen sama ñaari jigen yoyu muy ami Collé ak euh, Nogay di nuyu sunu champion bi tay tok di kasse Diop ñu koy ñaanal yalla feug bopam ba mu delu wat say activité euh di nuyu nak bari fi teew yëpp ñep ñep ñëpp parce que buma limé rek dina gudd te comme guddi buma limé day gudd mais ñu ngi nuyu aussi sunu grand djib mal li ko waxe deug la jib yi daf ma yar ma ànd ak moom ci lu ne nag lu ne mbappat fu ne la ñu ànd ci àdduna ba tey euh, di nuyu kenn koo xam ne kenn ci man la teewul si jotaay bi euh, dafa xaw a fatigué sonn moo tax ñëwul muy mbay boy maa koy nuyu bu baax a baax a baax bi may ñëwee mi ngi déggante euh, di rafetlu nag nga xamante ni booba mii tey moo déplacé wu ànd ay rakkam ñew kër ga ñu waxtaan si lu bare bari ma rafet lu ko bi ma ñëwee tey fekk fi pakala toog fekk jordan toog euh, dama kontaan xamul tax parce que li mooy crème lamb crème maanaam crème mbuur lii la crème mbuur lii la ma fekkaat si jotaay bi tey champion bëri toog booy mbuur fekk fi euh, booy ngaay fekk fi pàccaam ah Anas Diatta Diop ak sama fils eh, ki Ndo sama jambat Orange 2 ibu Diol vraiment mbay ñu ngi nuyu ñep di len wax ni rafet li du rafet la euh suma ñëwee nak si si si waxtaan bi tay 100% Mbour initiative rafet na waye dama ci wax ñaari mbir rek yomuna yomul xam nga nit ki suñ la nee yomb na mooy tey xol yi nekk benn lu yomb a defar la waaye bu kenn dégloo rek pour ñu jëm ñoo diviser rek du yomb mag dañuy wax ni téeméeri nit boo leen di sàmm da nga yor téeméeri yat ndax kenn ku nekk ak jikko du mu mais man nga yor téeméeri mala yor benn yet mu benn jiitoo rek yëpp fa lañ jëm dañ koy topp waaye li ma bëgg mooy lii tey ñu ñu initiative bi nga xam ni tey moom ngeen xalaat ñu xalaat ko bi ngeen ñëwee kër ga waxtaan si ma rafet rafetlu ko mooy dama bëgg mu nekk lu dëggu ndax boobu maa ngi dégg waxtaan bi su boobu ji amee combat après kon day mel ni bu ñu nee cent pour cent mbuur rek boobu jéem moo tax mu jóg. foog nag ngeen dégg bu baax li may wax man làmb li ma ci dese li ma passé moo ëpp kon mënu ma si defaat atu yàgg waaye dafa am beneen génération bii mooy ñoom Bouba ki Jordan ñoom Boy Ngaay Boy Mbour jaata ñii ñoo ma a dese carrière si làmb kon tey dafa tombe dafa tombé man maa am combat mais dama bëgg mu nekk continuité xam nga garab. nga samp ko nii rek tey roose ko bëgg mu màgg tey nga am si fruit tey lekk ko tey mënul nekk kon 100 pour cent mbuur bi tombe na si man laay wax ma dese tuuti ci làmb defe naa bu amee continuité dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg même xale yi beneen génération bi dañoo mën na ci gis seen bopp li may wax nag foog nga foog nga foo nga dégg bu baax pour xam fan laay waxee maanaam. tey jii ñu ne man am naa combat Bouba ñëw na Jordan ñëw na Pacham ñëw na Boy Ngaay ñëw na ñu ne tey kenn ku si nekk sa quartier bugg nañ fa jële benn au moins benn carte loolu xajul arène nationale te mbooloo mooy doole buñ fa jógee ñu ne tey Bouba am na combat ñu def la même chose xajul te mbooloo mooy doole. Euh, beneen bi mooy bu ñëwee si local bi local mooy maanaam biir Mbuur dafa am tamit xale yoo xam ne dañ si bokk génération dañuy bëri seen biir sànq na waxtaan daf ma xaw a moo tax bi ma ñëwee laajte naa ndax waxtaan ngeen si bu baax daf si xale yoo xamante ni dañoo bokk génération te dañuy bëri seen biir euh, ñaari biir rek moo si nekk boo nee dootuñu bëri da nga leen di xaj seen teranga am déet te nit ki métti bi muy def boo ko nee dootul ci bëree ku dëkk mbuur te ay promoteur dëkk ba bëgg dëkk mbëri mbuur yaa ngi koy xañ teraangam kon nag foog ñuy bëri seen biir loolu mënul ñàkk mais tey am na am na fooy toll ci làmb mën ngaa bañ a bëreeti mbuur xam nga ni tey buuba Jordan xel xalaatul boole leen biir mbuur ah du dëgg kon nag génération bi nga xamante nii ñooy xale yi nekk ci suuf nañ leen bàyyi ñu bëri seen biir parce que as euh, 100 pour cent nguur bi waaw. sëriñ xam nga man non xam nga lan moo tax nga indi problème da nga lim mbir mbir yëpp ya tuddoo iya. obama boy nga ni ko iya, doo mbër boy nga ni ko doo mbër yow iya, yaa indi problème nah, ay tuddoo obama boy nga ni ko doo mbër yaa indi problème di la mais xel xel waaw xel day fàttu de mais xam nga ne ñaar ñi de combat la obama boy nga ah Musa mi di combat dam ay di del ka xam nga dama lay wax dama lay wax tey Thank you. man tey sama position si lamb euh, wax naa ko fu nekk man amatuma sax droit naan lii mooy sama écurie lii mooy écurie bii lii mooy écurie bële man ñëpp laa bokk njaboote tey fii tey li mu wax ni nag mbër yi nekkoon fii ci kaw podium bi ñu fi toog ñëpp bu ñu demee tey bu doon kër la ñu dañoo génne kër gi boobu ñi moo ñu dëkkaloo ci biir këram tetteñu ba ñu màgg ba mën a jënd kër ba dem di former ay xale génn former ay nit grâce à boobu ñi moo tax moo tax sànq bi ma ñëwee dama ko tënk rek dama ni bi ma ñëwee fekk Jordan toog Pakala toog Bouba Assurance toog ñun ñëpp si benn ngir lañ nekkoon mais xam nga man 100 pour cent mbuur bii tey ñu ñu ñu def tey mbër yëpp toog Euh, dafa am beneen inspiration bu ma jox parce que dafa am lu doon lënt si xelu nit ñi lënt xelu nit ñi xam mooy lan mooy ñu bëri tey yaakaar nañ ni bu woon bi muy bi muy jógee si man di former écrit dañoo am problème te mu ngi nii nee naa ko waxuma sax làmb mais sama dëkkandoo la sunu kër yi daanaka matul deux minutes tey bu dara xewoon balaa dara xew sax benn mbokk yi ñëw mën na faa njëkk a Jordan mii. waxuma la sax ay làmb avant muy bëree maa ko daan yóbbu géej sama mool kon li ma booleeg moom du làmb paka la booba ñoom ñëpp benn écurie lañ nekkoon mais nag dañuy kër bu màggee même même même même même dans la vie normale kenn ku si nekk nekkoon nga sa kër bàyyi dem ba màgg fondé famille takk soxna jënd kër dem fa est-ce que da nga am sa papa noonu la demee. mais ñii amul si benn problème presque dañuy déggante dañuy gisante la preuve mooy Boy Ndiaye mii toog nii dañuy dañuy déggante bi mu waree bëreeg général général dafa ñëw ne ma Boy Ndiaye lañ may jox Boy Ndiaye mii ne ma ah père foog nga maandu sa ñaari booy ñooy bëri général may dégg bi mu ko waxee dama ko ni Boy Ndiaye kat sama booy dañuy déggante de waaye yéenee mayante xaalis dañu di liggéey. Pathiam mii tey bi muy bëri Ousmane Gandigal Ousmane Gandigal sama booy la dañuy déggante lu muy dugg daf may grand loo xam si lii moo ko la ma ci xam waaye nag yàlla def na du ma wax man du ma fekkee fu ñuy ñaawale mbër du ma fekkee fu ñuy xase mbër du ma fekkee fu ñuy yàq dëru mbër du ma ko nangu bëgguma kuy tuutal mbër bi ma nee Pathiam lañ may joxe dama ko ni Pathiam it sama booy la mu la dëkk dañuy déggante waaye da ngeen liggéey Pathiam defe loolu sama wax la ak yow euh, booy mbuur mële même chose si sama équipe la nekk waaw mais tey comme si war a bëreel ku dëkk mbuur dama ko naan diw de xam naa ko parce que man maa njaboot yi ñëpp waaye comme da ngeen a si liggéey liggéey leen point boobu tax ma koy leeral mooy làmb dama xaw fii fiir tey man ñeen ni ñoo bokk suñu 100 pour cent ngeen am combat signature contrat yi kii ñëw kii ñëw ñu waxante ba wax yoo xamante ni pour ngeen si si si tey si si si réunion wala ngeen dajewaat programme day jafe moo tax man ngeen ko rafetal terewul di ngeen liggéey seen liggéey euh, beneen bi mooy il faut mu nekk loo xamante aussi li nga wax sànq day am bureau fond mu base. Euh. li may wax nii. damay wax ñëpp dégg ko si kàddu bi yëpp li muy wax nii naan ñun ñëpp ay doomu Mbuur lañ Ada Fejoor ba ma nekk ak moom contrat sam papa wàññeeku daa jël téléphone am jaale ma ma sow ma bokk ak man nakar gi xëy dajeeg man saa foo mu tonde man présente ma soxnaam te gis ngeen ba ñuy bëre lu nekk am na si mais ba ñu bëree ba pare si guddi gi Ibou Fall kuy boole doomu aadama la dafa appel vidéo mu may xool ma koy xool ñu waxtaan sëkk jàmm kafre booy gaa yi nii bëri nañ daan na ma yóbbu ma seen kër yóbbu ko sunu kër làmb la jeex na sunu biir ñooy mayante xaalis bu jeexee jeex na wasalaam waaw kay loolu loolu euh, li naan tumbare du teew ñii nataal maanaam mbër yi nga ko dund ñu ngi te am naa yaakaar ne léegi nag esprit yi muy commencé di changer léegi esprit yi muy commencé changer euh, damay dugg euh, sitam ou teleem bu ma xam moom la signé contrat donc contrat bi dimanche lay jeex suñ dernière face à face dimanche la ma libre euh, def nañu recours nag vraiment recours bi génn na jox nañ ñu ndam si jël ba pas ay pas ay avec voilà léegi dimanche mooy suñu dernier face à face ñu gitoo ku nekk dem waaw dimanche jour dimanche boobu mooy làmp los production grand combat mooy Pakala Lawbe ak Idibou Ngari ñu si woo amateur yëpp nag man xam naa damay ñëw làmb yi yëngal soo ko kon ne dem euh, face à face ba incha allah rabbi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp mbër yu ndaw yi mbër bu ndaw sax amul xale rek la magante moo fi nekk. gën leen a respecté entraînement yi gën a défendre couleur dëkk bi kii wax na ko léegi Raye Diaw wax na ko ñu ngi koy nuyu. Serigne dogguma la de nuyu dogguma la de. Jordan hmm. daa am lu mu wax sànq mu ni saa yu ñu demee làmb bu desee huit mbër parfois su doomu Petite Côte day des chaque jour ma wax ko sama reportage yaa ma ko waxoon te dëgg la. waxal sa mbër yi ñuy génn ku si mel ni général Diouf na bàyyi 500000 yi muy mboqatu rek. is en comprendre jaata Diop ni gën a ja ko kay wax keroog palmarès yàq combat mooy àndaloon. nañu génne di bëri ji saa ñu génnee dañuy naru nañ bàyyi di entraîné di sol bëri di xuutal xuutari di xaabar xaabari di sol bëri dañ ko bàyyi waaw voilà gis nga kon il est temps wax am solo mooy ah booy yaay moom daa bàyyi lig seen waaw kay gis nga waa jàmm entraîné wul waa jàmm moom tapet bàyyi na làmb yàlla baa ca. waaw daa bàyyi laaw. Ah, eh, eh sama nijaay mbër la. sama nijaay defar na licence am day génn fan yi léegi mu sax. waaw <laughs> non oui ma oui ma léegi nag gis nga gis nga euh, ñii nag ñii wax nañu am solo ñii wax seen doléance. li ñuy wax nag jàppe leen ni jàppe leen ni jàppe leen ni seen i soppe lañ. jaata Diop moom ngeer gi jaratul muy ñëw ndax bu ñu dee bu jël bu ndaw bi day jël laam waaye bu ngeer gi ñëwee day daal. guerre gi jaratul ñu ñu waaw sa mbëri dañoo ragal a wàcc ci Dakar yi ci mbëppatu àll bi rek la ñuy kon nag dégg ngeen ko noonu kon kon kon ay ay vrai amatrice lamb ñoo wax ni wala ñu top lamb ndo neena du mbeuru mbapat waxuma ay waxam cionu gal mu fi togon fan yi combat mom moko téwon way lay genn ndax dafa mëna ta sa yu genné mom tamit day bokku ci course yi ah Ngel Jonn moo fi mbër. Ngel Jonn ak ak Wol Jordan si ginnaaw ak orange 2. Ngel Jonn orange 2 moo fi mbër. donc may ñu doo mbëru temp may ñu jàmm ay ŋaamu ko di xaar 100000 francs. Eh, Mbuur benn mbër ñaari mbër la am orange 2 Ngel Jonn. voilà euh, dafa am lu ma Moussa wax léegi. waaw dafa am lu ma dey léegi. ci si combat Siaka orange 2 bi mais dafa bëgg Jordan nii ak Bouba defal ko sélection boo yi gën a taxaw boo yi gën a entraîné gën a taxaw troisième journée Los production ñu def sélection bu dëgër boo xamante ne yëpp fii la ñuy bokk si 100 pour 100 bu waaw kay kon sant nañ leen gërëm nañ leen. jëf. dañuy dem Touba.